salaamaaleykum mbokk yi alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV euh, Cheikh Ahmed Tidiane Samb di doomu nday Abdou Aziz Ndiaye ñu gis tey nga ñëw fi dafa mel ni la Abdou Aziz Ndiaye waxoon def na ko lu ñuy fàng kenn du ko jeex lan moo leen di woon tey Tiwaawan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi ziar ñëpp alxaaji Mbégi Diop di nuyu ñuy seetaan Mame Ndokh TV muy chaîne boo xam tey suñu sag la ñun waa kër Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu tey dama ñëwoon ci ndigalu Abdoul Aziz Ala Ndiaye. ci ndigalu ay wayjuram ndigalu ay xaritam ay soppeem ay mbokku taalibeem laay mën a wax ndax euh, biig rek wax naa ko ci groupe Futur Média ci télévision TFM li nga xam ne diggoon na ko ci quartier général waxoon ni incha allahu taala ci yéene mbokku taalibe yëpp dana wut ak daamar muy oto 4x4 bi mu joxee frère ndigal alxaaji Baye Alé Ndiaye ni ko wooteel en direct nga wax ñi toog ci plateau bi nii leen dina indi benn oto jox ko Serigne Alioune Diagne conférencier bu mag boo xam ne kër Seydi Hadji Malick yëpp dañ koy sago oto boobu nag tabarakallahu euh, comme ni ko waxee Abdoul Aziz liñ ciy ñaan mooy nee na yàlla bu mu ci gis boppam te nee na nekk yàlla kese kese kese da ko wax nag ci modestie wax ko ci tawaadu parce que pour moom daa jàpp ni rek benn soldat la ci kër gi bu yuutu ay moroomam ci ay taalibe di jëf ci seen tur di jëf ci seen yene oto boobu nag moom laa indi woon tey indi ko ci kër xarit général oto bi ñëw na indi ko ci kër xarit général de Tidiane. ban marque la. Cheikh Seydou Aboubacar ma koy nuyu di ko ziar. di nuyu serin Pape Malick si mi nga xam ni mooy anaatiq rasmi tariqati tijaniya rakam ju baax ji tabaarakallahu euh, di nuyu njabootu maam Cheikh Hadji Malick yëpp góor jigéen mag ak ndaw ndax Abdoul Aziz loolu mu def te it li ma ci neex mooy modestie ak effacement bi mu ko defee daa jàpp ni rek benn soldat la boo xam day wutu ay moromu taalibeem def ko. oto bi marque Chevrolet la nekk Cadillac boo xam ne macha allah voiture américaine la te xeeb na ko kuy liggéey Seydil Hadji Malick di dem ci mission di dem ci région yi ku mel ni sëñ Aliou Diagne ak ñu mel ni ñoom waxuma la Chevrolet waaye jet privé sax jomb leen maa ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo dëppati seen bati xol ci Mame Ndokh TV di jégalu ñëpp di baal ñëpp xaq di ziar ñëpp ci Cheikh Ramadan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu